léegi ñu seetlu ne parti PDS hmm. temps yi dafa bëri ay ay problème ba ci démb rek dàq nañ ku mel ni Farba Senghor ak Pape Samba Mboup léegi yow nag ban jàngat nga am ci homme politique yi ñoom naka la ñuy comme yow sa affaire valeur lay lay lay lay lay ci moom lay kii ci lay dox ndax homme politique léegi am nañ valeur valeur boobu noonu ngay kii nga jàngatee problème boobu leen daal xam naa ko ndax maa ngi ci terrain politique bi li taxoon ma bañoon ca njëlbeen dugg politique dama ci teg bët ndax politique ni mu demee wax sa wax nekk wax ju woyof loo wax teg teg fee def leneen muy loo xam ne nit ñu bare dañ ci dugg rek pour wax lu dul dëgg lu am la mën na looloo taxoon bëggumoon dugg politique maa ngi dugg politique bi ma nee suñu compagnie gi bu ñu duggee politique mën nañu setal yëf looloo tax ñu dugg politique léegi te il faut ñu def ko nag parce que suñ ko deful ñii nga xam ni politique mooy seen liggéey dinañ yàq askan wi gën a yàq askan wi kon boog na ci ñeneen dugg ñi nekk société civile nañu dugg carrément ci politique bi ndax ñu seetal yëf yi waaye li ma bëgg wax rek ci affaire PDS bi li ma bëgg wax rek moo di ne beneen affaire jikko la valeur la démocratie mënuñu wax démocratie ci biir réew te duñu ko wax ci biir parti politique yi dañu war a bàyyi nit ñi ñuy exprimer wu di wax la ñu xalaat bon ku ci nekk nag na nga xam fooy yam loolu seen normal parce que droit wu nit mu ngay jeexee fa droit wu keneen commencé ah waaye démocratie bi lu ñu war a di fàttali la dañu war a am démocratie ku ci nekk la nga xalaat nga mën ka wax ci kaw yar ak teggin loolu laa ci bëgg a wax